papa ñu ngi leen maa ngi leen sant yéen ñëpp maa ngi fay leen gërëm aussi leen merci ci intervention bi. yoo mm-hmm. xam ne nag accident bi nekk loo xamante ni si lu métti la métti na trop parce que ñun nag ñoo si gën a métti le parce que ñun ñi nga xam ne jot nañu gaañu rek mat nañu sept personnes yoo xam ne si parce que ci genn kër lañu dëkk. Mm-hmm. man am sama ñetti doom yoo xam sama cinq personnes yëpp samay doomi frère lañu ñaar njëriñ samay jarbaat lañu am na si ñoo xam ne ñu balaise lañu dañoo ñëwoon benn ngénte foofu di retourné waat jël horaire bi. ñu diggee nag euh, l'accident bi am ci yoon bi. li ñu wax ne dafa oto bi dafa daje woon dafa doon moytu benn mbaam bi mu moytu mbaam bi daal di taseeg benn camion bi ñëw mu dal ci camion bi affaire daal noonu la demee alors aussi ñu ngi dégg ay information que ni euh, bi Dakar la euh, la jóge ñu ñëw ba fii. non non non non non jàkk jógewul Dakar car ñu jógee Ngiig Ngiig fa la dëkk la jógee quoi mooy horaire bi jógee Ngiig di dem Dakar léegi moom day xëy foofu day teel xëy foofu quoi bu xëy foofu léegi dem Dakar booy yi nag ci lañ tuggoon war a demaat Dakar parce que booy Dakar lañu dëkk dañu ñëwoon foofu ngénti bi ñuy retourné waat lañu jël car bi jël horaire a gën a mit parce que am na yenn booy dañoo xajul ci car ñooñu dañoo mujj retourné waat delluwaat ay war na de matin yo parce que man 7 heures lañu ma woo wax ma ko ay 6 heures de matin sori fa suñu daal am nañ ci ñi nga xam ne jot ñi nga xam ne jot nañu gaañu actuellement fi mu toll nii sept personnes moom sept personnes moom leer na moom ñoom ñëpp gaañu nañu ñoo ñëpp génn nañu na am na si nag ñoo xam ne dañoo blessé blessé yu grave ñenn ñi jàlle nañ leen Saint-Louis ñu ci des ñenn ñaa dëkk ba ñenn ñaa ngi hôpital toog di xaar foofu fa laa leen bàyyi nii hmm. euh, ñëpp dëkk ba dañ leen di yóbbuwaat am na si am na si koo xam nag moom jabar ji moom Tëngéej la dëkk mais dañu moom da koy delluwaat Tëngéej robi ko foofu li ma si jàngate mooy sog yi li ko xam naa tëli xat na aussi itam xale yi parce que auto auto transport dañu war a xool ñu ngi koy jox xale bu am expérience ku am responsabilité parce que itam xam li nga yor mooy lan parce que itam xale yi da ci bari ñoo xamante ne si bu leen dara traversé dañuy gaaw affale su pën a tojee wala dara traversé loolu da ngay gaaw affale yooyu yëpp dañ ko war a dañ leen war dañu leen war a gën a formé waat daal dañ leen war a gën waat waaw loolu daal moom li gën a ëpp importance ci la bokk ba amoon message bi nga xamante ni euh, moom ngay lancé lan lay doon ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk réew mi. waaw ñu may dénk réew mi rek li ma leen di lancé mooy ñu gën a xoolaat sécurité bi rek. waaw ñu gën a xoolaat sécurité bi gën a xool gën xool oto yi euh, affaire bi norme ñu norme bi quoi waaw gën a xoolaat oto yi gën a xool loolu daal ci ëpp importance waaw. te ñaari oto yi ban moo ci doon moytu mbaam bi. Euh, bis bi la ñu wax car bi la wax ne moo doon moytu mbaam bi. car bi la wax ne moo doon moytu mbaam bi bi ñëw. amoo leen benn jamono ji ngir jot seen ay waaw amaguñ jafe-jafe de parce que sànq ma fi jógee daal dañu bu bi demee léegi après daañu mën a libéré koor yi mais daal jox waxaguñu daal lu daal loo xam mais am nañu yaakaar si ne daañu ko jot balaa ngoon. mesures yi nga xamante ne jël nañ ko ci jamono ji wax ni oto yi euh, nañuy daw yenn heure bàyyi yenn heure noo ko jàngat mais loolu tim bon du sensé lu bare parce que itam nit ki daal li am importance daal mu ñu gën a former chauffeur si chauffeur si daal ñu leen gën a former ba ñu xam ba ñu xam daal li nga xam si moom mooy si mooy règlement yi waaye daw guddi beeg daw bëccëg bi yëpp te bon li am importance moom nga xam li ngay def deg ko ci yoon mais bu fekkente si dangay daw bëccëg te loo yoon itam amul importance waaw loolu laa jëm solo. aussi tamit ah, camion bi xamoo aussi tamit ñaata mort la. non moom xaw ma camion bi moom xaw ma si lu bëri camion ma si dara. parce que ni ngeen jot a ñàkk ay jigéen lañu wala ay góor. ah am na góor ñi ci ëpp nag benn jigéen moo ci am góor ak benn góor euh, six six góor ak benn jigéen pour l'instant waaw am na si nag ñu am blessé yu métti Ok, merci beaucoup.